non football Afrique daal man football africain daal jaaxal na ma c'est dommage quand même di leen wax gars yi asalaamaaleykum les ñëpp di leen wax si dommage lii nga xam ne nii moo xaw démb métti nañu trop trop trop wallaahi te ñi nga xam ne ñooy waa kaafkat war na ne si jël seen décision yu mat sëg ndax Ismaïla Sarr am na ndax ki nga xam ne mooy Ismaïla Sarr am na li nga xam ne mooy penalty arbitre bi tiiriwut boobule penalty ñi nga xam ni mooy Ivoirien yi am li nga xam ni mooy penalty arbitre bi daal di waar tiiriw te penalty bi sax mën na ne penalty boo xam ne nii la daanaka mën na ne du penalty arbitre yi daal dafa mel ni rek dañuy xeex Sénégal en tant que équipe bu mel ni Sénégal le champion afrique équipe bi nga xam ni moom la ñëpp def li nga xam ni mooy favori ñu koy génne si génne yu mel ni sa waay xam nga lu rafetut arbitre yi daal li nga xam ne ñooy waa CAF war nañ see jël yeneen décision yu mat sëg wallaahi ndax instant yi moom lii dafa ñaaw trop wallaahi Sénégal mënoon bu doon éliminer timide mënoon nañ kaa éliminer neneen noo xam ne du problème mu arbitration affaire yi mais affaire yi daal yéeme na trop di leen wax gars yéen ñu abonné ko ngeen abonné di like di partage ba si beneen vidéo ak beneen argument incha allah.